gis ah tey nag li ñu fi dajale day comme ni ko le coordonnateur waxee rek mooy xëy na point de presse bi waajuñu ko parce que ñu ngi ci wàccaayu campagne yi parce que gars yi ci lañ nekk moo tax ñu bari bari sax daanaka ci liggéey boobu lañ leen bàyyi fii nag li ñu fi dajale tey bokk na ci leeral. injustice ba nga xamante ne bii tey jii comme ni ni ko ni ko le coordonnateur waxee tey dafa mun a ñàkk te comme ni ñuy jëm ci élection faw ñu leeral ko ndax yaakaar naa def nañ fi ñaari point de presse yoo xamante ne bii comme lu mel nii moo tax ñu def ko tey jàpp nañ ni boobaak léegi ah gisagul ci saafara te dafa am loo xam ne ñun moom lañ doon xeex. Ousmane Sonko bi nga xamante ne bi tey moo tax ñun ñëpp tey ñuy politique parce que ñun mësuñu def politique injustice buñ ko teg tey moo tax ñun ñu xeex ànd ak moom tey ba teg ko fi mu nekk mën mii ñu wax a yow dama xeex ba dugg koso def 21 mois nii may waxee nii comme wax naa ko ci point di takk ñaari weer di souffrir lu metti te kenn gënu maa bëgg réew kon tey bu ñu gisee loo xamante ne lañ doon xeex ci régime bële ñu gis ko fii ci département bi te kenn tëgguñu ko ku dul le bi bii fi nekk muy Cheikh Thioro loolu dañ koy xeex ndax jàpp naa ne ku fi bàyyul Macky Sall doo fi bàyyi kii nga xamante ne bii Ousmane ko moo ñu ko joxoon ñu leen ànd leen moom te doxle bi muy doxle tegu ko fenn dul ci ay caaxaan ndax nit buñ ne la yaay coordonnateur da nga war a dajale boole ñëpp. mais nag bu dee yow da jaar sa yoonu bopp tey jii ña la doon xeexal ànd ak yow guddeeg bëccëg nga wan leen ginnaaw ànd ak ay nit ñu bees tàq di wëlbatiku ña la doon xeexal nga leen di xeex ñoom loolu injustice la te ñun xeexuñu ngir ñu fal benn poste xeexuñu ngir ñu jox ñu dara mais dañuy protéger projet bi parce man dama am ay frères yoo xamante ni bi loolu dafa nekk sama xol mooy ñoo xamante ne bii dañoo xeex ba tëdd ci armeel ya muy quatre-vingt nangam personnes DG yi ñooñu ñoo tax ñu xol leen ministres ñooñu ñoo tax ñu xol leen détenu politique yi tëdd xeex ba tëdd ko sax ñooñu ñoo tax ñu xol leen kon tey dafa am loo xamante ni buñ ko commencé gis ci liñ doon xeex loolu injustice gënu koo ñaaw ndax man mosuma yaakaar loolu ndax département bi li fi xew ku ne xam na ko le coordonnateur tey boo demee ba mën a taxaw ci ki nga xamante ne bi tey moo doon xeex Ousmane Sonko di ko saaga tey di ñu saaga jël alalu Sénégal yi di ko wàcc mooy nangam ndaw soo su sant Mbàkke koo xamante ne bi tey Ousmane Sonko ñëw na Touba ngir bëgg a gis sëñ Mountakha mu jaral mu joxe 2 millions ci kër sëñ bi ngir Ousmane Sonko bañ a gis sëñ Mountakha loolu dara gën ko ñaaw kon kooku tey bu ñu demee ba la coordinateur tey yi jaxasoo moom fexe ba ba mu jaxasee Ousmane ñu koy sant di ko gërëm ñi doon xeex seen doom yi dee loolu seen xol dana naqari parce que kooku tey moo doon saaga suñu yaay di saaga Ousmane Sonko tey la coordinateur tey moom la àndal bu fi Ousmane Sonko di ñëw ñun duñ ko yëg mais moom dana ko yëg te moom lañuy sant di ko gërëm loolu injustice mënu ko romb te loolu la xeex ñun xeexuñu kon ñun li war a def def nañ ko point de presse bii mujj bi ñu mujj def procureur Aliou Ndao déggante nañ ci téléphone ma leeral ko lépp lu Cheikh Diallo nekk ci département bi ak injustice bi muy teg ak doxee lu ko neex ak di communiquer lu ko neex di yàqal régime bii fi nekk ci communication boo xamante ne bii dara baaxul loolu ñun tey ñu la yàqal parce que ñun dañoo xeex dugg koso suñuy frère de la nar a yàq projet bi dañuy taxaw parce que tey Ousmane moo ñu booleeg moom kon tey buy def loo xam ne injustice la Ousmane tey war na man a taxaw wax ak kii nga xamante ni moom la ñu boole parce que man dafa am loo xamante ne bii ci sax Ousmane nii nga xamante ne tey moo ma woo ci projet bi tey ba ma joxe ci sama lépp ñàkk ci sama lépp tey bu Ousmane jaaroon beneen yoon boo xam ne la ma wax a teggi na ko damay taxaw jàkkaarloo moom parce la ma woo ak bu jub jubal jubanti kon ci loolu lay nekk kon tey ñoo ngi woo autorité yi parce que comme ni ma ko waxee maire Tall woo na ma ma expliqué ko li Cheikh def ci département bi Fadilou Keïta yónnee naa ko lettre bi yónnee naa ko Olivier Boucar mu yor fonction fonction publique Sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne xarit Ousmane Sonko yónnee nañ ko kon li ñuy def nañ ko ci kilifa yëpp amit dafay yónnee naa ko kon nag tey dañoo bëgg lii injustice bi nga xamante département bi ñu ngi dund te kenn te ñu guddul Cheikh Diop dama bëgg président Ousmane Sonko yow injustice moo tax ñu xeexal la tey ba teg la fi nga nekk ay nit dee ngir luñ la doon teg ñii ñu ànd ak yow dugg ci ko sa kon kon tey boo ñu boolee nit boo xam ne tey moo nekk ci bi di def lu ko neex kooku vraiment tey jii bu roosee taxaw sax benn point de presse nga dégg ko te saako boobu ànd sàmm projet Pastef Touba yëpp ci commerçant yi ci bokk ak artisan yi ci yëpp dañoo pare pour campagne parce que bu ngeen gisee tey jii lu ci ëpp sax mboolem ñëw gars yi dañu préparé campagne yi ci seeni moyens nit nag bu la tooñee muy le coordonnateur da nga koy war ginnaaw parce que li tax ñu war ko ginnaaw ni ñuy doxale neexuñu parce que dañ doon xeex injustice bu ñu koy teg kon nañ am nañ droit yu wan ko ginnaaw jël suñuy moyens bopp campagne loolu tey moo ñu fi dajale muy teg nag kenn du yëngu maanaam kenn ni Ousmane Sonko yëngu liñ bëgg tey moo réglé ko daar daar daar ñun nag dañuy continuer di xeex parce que tant que lii di am ci département bi dañu seet yoon li mu nekk ci département bi dañu dañuy continuer di ko xeex ak moom ba keroog Ousmane Sonko ñëw réglé ko parce que nit mu ne ne ko yow laa dégg département bi muy def loo xamante ne bi yow yaa ngi laaj ay cinquante ans nga fi ko toog muy communiqué loo xam ne mën na koy yàq ñun ñooy perte ñu ñu ñu dugg ko so dee ñàkk suñu lépp ñun ñooy perte dafa am loo xam ne dafa ñaaw yow mënoo nekk ci département un million yoo xam ne bi yow yoo koy mës a diggal sa bopp mësoo ko am tey buñ la xeexalee ba lépp agsi nga bëgg a beew di wan nit ñi ginnaaw di ko nga bëggee loolu ñun mënuñu mënu mënu ñoo jaaxal parce que man Cheikh Ousmane ma boole moom xaw ma ko Cheikh Thioro Ousmane Sonko moo ne ma àndal moom nga jàppale la ma war sama digganteeg moom def naa ko kon tey fii beew xaju fi ñun ñëpp xamante te communication yi comme communication yi def na ko rafetal parce que fii ñun li ñu xam dafa bëri li ñu xam dafa bëri jub jubal jubal gi am na ci ñoo xam ne ñu ngi suñ biir ñoo gën a jubali ñoo jubali ñi ñuy wax ñoom te loolu danañ ko dénoncé ñoo gën a jubali ñëpp parce que communication muy dal ci ñoo xamante ne bii sama yu nekkul ñoom sax parce que man ànduma ñoom mais mu ngi communiqué loo xam ne dafa gën parce que gis naa ñoo parti bi lañ jàppale bañ am ndaw te kenn gisu leen ñuy xeex ay tey ñu dem ak seen liste bopp ni parti bi lañ jàppale nga leen di loolu dara nga koo ñàkk te ñu leen di traité sàcc loolu ñoo dàq sàcc ci dëkk bi parce que li ñu xam dafa bëri te après élection yi lépp dana leer incha allah jërëjëf. ñun nag mën nañoo gën a guddal parce que dañuy ñëw ci fee yi nga xam ne moo waral jotaay parce que fàtte dafay xajagul. dañoo jóge ci ay moment yoo xam ne moment yu difficile la Pastef dund ko Sénégal dund ko Ousmane Sonko dund ko ñun ñëpp ñu basé dund ko kon nag buñ nee fàtte xaju fi il faut que ñu rappelé waat nit ñi tuuti kenn dafa am lu ñu liyee ba ñu mën a taxaw ba mën a yegsi fii tey loolu nag bu ñu àndee ay nit ñu dem ba mel ni lu koy waaj a dañuy taxaw fàttali leen ne leen lii du moo ñu liyee woon fi koy commencé nag dañ koy commencé si suñuy kilifa muy président Ousmane Sonko ndax bëri na luy sooxe ci département bi man duma nangoo nangooti ne yëgu lu si bëri yëgu damay commencé par sunu jigéen Awa Seck nga xam ne moom mooy handicapé bi ñu investir liste nationale dix-huitième position dund na fii ci département bi loo xam ne ki ko teg mooy coordonnateur commune bu Touba bi moo ko teg ci législative yi fi jàll taxaw ñëw na day def candidature mu ne ko duñu la fi bind comme candidat parti bi yëg ko Cheikh woo leen wax leen lu dul dëgg ñu bind texte sanctionné Awa Seck ci lu dul dëgg ñoom dem nañ ba ci biir xam ne saa waay nekkul ci dëgg yónnee woon nañ fi ay ndaw. te lii ma lay wax dafa yàggul dara deux mille vingt deux kese ñiñ fi yónnee woon bokkoon na ci magi Pastef tonton Mayaabe bu déggee dina bu déggee kàddu ji dina xam ñoom àllkat jour boobu maa ngi rappelé ko bi ñu ñëwee dama ñëw si jotaay bi Cheikh Thioro yii dafa taxaw ne man du ma jël parole parce xam na ni fee yi xew yëpp yëg naa te fekke naa ko te dinaa ko ràppale benn par benn loolu nag duñ ci acharné wu. mais dañ koy dañ leen di rappeler que ni ku yàgg a def injustice te man nag damaa gëm léegi que ni ñi ci kaw dañ ko see commencé far parce que nit mënul def injustice nga koy yëg di nëpp nëppal nëpp nëppal bëgg a gañe baax na lool mais bu fekkee dañ laa xeexal injustice ba nga ñëw waroon nangu ñu te keneen injustice man loolu laa gëm te ñun tamit loolu lañ doon xeex kon nag mënuñoo xeex loolu ba yegsi fii tey ñun suñ biir ñuy def injustice bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom lañ mujjee jàll muy élection présidentielle juste bi élection présidentielle desee quatre jours laay soo a génn rëbës moom nga xam ne fekk naa ñu teg comité électoral ba pare ma ñëw ànd ak ñoom campagne bi ma ñëwee fekk naa ay manquement yu bëri mais comme que lu bëri lu bëri raw na la da ngay mën a ñëw ànd ak ñoom rek déroulé bi ñu campagner ba élection yi jàll département bi mooy seul département boo xam ne dem nañ campagne élection présidentielle ba mu jàll benn benn évaluation am fi te lii ma lay wax ay feera yoo xam ne ñi nekkoon ci coalition beeg ñi nekk biir Pastef yëpp mën nañ koo confirmer parce que tamit Pastef dafa am lu mu baaxoo mooy lan lu mu jëm dana ko jàngat lu mu jugee dana ko jàngat lan la fa jugee lan la fa jëlee ak ba fa demee tamit lan la fa lan la fa bàyyi comme que nag ñun dañuy woote rupture kon jàpp naa ne rupture bi dañ koo war a gis si ñun waaye waruñu di joxe exemple yoo xam ne ñun ñi nga xam ne ay ndaw ñoo ngi suñ ginnaaw di am yaakaar ñu ñu changé li fi nekkoon ñu bëgg leen gën a yées te li doxalin bii ñu jëm nii daanaka loolu lay ñun te du ma ne moom kese parce que coordonnateur départemental bi moom am na si part de responsabilité parce que moom waroon na taxaw xamal ko ne ko lii nii nii da nga ko war a def te dëppoo wut teg sa parti kon nag bu ñuy wootee jub jubal jubanti nañ ko jiital suñu bopp ginnaaw bi loolu jàllee bi ñu jëmee ci législative yi ñu jëm parti bi génne na benn circulaire wax ñu pour naka la ñuy demee ci candidat à la ñoom ci seen ñàkk a ñoom ci ci seen ñàkk a formel lu informel rek moo leen neex ñoom ñaar yëpp laa ñaari coordinateur yëpp dañu bàyyi ba dernier moment ñu dajale nit ñëpp soo leen déggee ñu naan département bi am na cent et quelques ñoom la parce que maîtruñ maîtruñ nit ñi commune par commune ñu jéem waxtaan seen biir trouver consensus defuñu ko. dañoo bàyyi ba dernier moment ñu a ñëpp ne ku nekk candidat rek ñoo nekk candidat ku am carte membre Pastef rek na nekk candidat dëgg la mais parti bi muy wax loolu tamit am na ne la fii département bi mënoo fexe ba romb dix personnes cinq titulaires ki deful rôle am nañ coordonnateur départemental moo juum juumloo loolu tamit lu jar a taxaw loolu noonu moo ñu topp ba ci bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu sampee candidat ba pare parti bi génn waat benn circulaire pour ne nañu nañu teg comité électoral bi bi parti bi bindee circulaire nañ nañ nañ teg pour comité ñu dem ba 22 bii passé ñoom ñu créé benn groupe dugal si ñu bëri xam naa nag boobu dañoo bëgg a waaxu nit ñi le 22 di di di dimanche non non non la crois le di lundi ma dugalal leen circulaire bi li mu wax ne leen bàyyi leen seen caaxaan dañ leen a sampuloo comité électoral mais ubbiloo wuñ leen ay groupe woote ndaje ngeen samp comité électoral am na lu fi amoon ci élection yi ñu génn ñun duñ seetaan mu fi amaat. moom Cheikh Thioro moo njëkk dugg ci groupe bi ne ma Bamba li ngay wax dëgg la waaye dafa dëgg moo lay xamal ni moom kon mu ngi ciy ci saa si même pas vingt minutes ci la dugalaat beneen vocal daan ne léegi dinañ ko wootee demain c'est vingt trois dix heures daal tëj groupe bi bi mu ko wootee ñun ñëpp ñu dem après yéen journaliste yi dinaa leen jox li circulaire bi wax ak liñ doxal lépp ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen bàyyi si xel bi ñu wootee le 23 ñëw nañ ñoom dañoo tardé sax mais nag loolu moom garaaw bi ñu ñëwee moom moom tête de bi mu ne am na privilège moom moo war a tànn directeur campagne ñu ko c'est nga tànn directeur campagne mu tànn directeur campagne tànn adjoint léegi ñu war a jublu si coordonnateur mu ne sept personnes jub dañoo bëgg a nekk candidat ñaar ñi nekkuñu fa cinq yi ñoo fa nekk mu ne dañuy dem vote ñu ne ko circulaire bi waxul loolu mu force def vote bi mu defee vote voté poste yëpp seize communes ci département poste yëpp Touba la yeneen yi nga xam ne man mii di wax ak yow li post bi ma si yor adjoint la mais yeneen poste yi des yëpp waa lañ ko mais loolu justice wala loolu wala loolu kenn kenn waru cee wax mais yow xanaa xamoo loolu sax moom moo ko waroon a gën a bañ moom candidat bi département département boo xam ne un million et quelques personnes ñoo ngi fiy yeewoo nga bokk ci cinq personnes yi ñu tànn ne yéen da ngeen doon ay député loolu lépp teraanga la boo xam ne suñu borom defal na ko war nga góorgóorlu ba leneen lii des lépp nga jubal ko waaye yow boo demee bay jubati bay jubal bay jubati kon yow duñ xaar assemblée yow nga jubal assemblée mën nga nekk nit biñ bi mu defee loolu ñun rappelé nañ ko à l'ordre mu ñu insisté mu insisté def li ko neex ñun nag dañoo nekk ci parti boo xam ne dafa am ay banqaas yu ko téye ay texte moo téye Pastef li ñu li ñu li ñu li ñu texte yi digal def nañu bind nañ njiitu parti yónnee nañ ko Ayib Daffé yónnee nañ ko Birame Souleye Diop yónnee nañ ko Fadilou Keïta yónnee nañ ko Abbas Fall mhm. yónnee nañ ko tamit Babacar bi nga xam ne moo jiite son nga xam ne moo géré son sant kon ñun li ñu war a def def nañ ko léegi nag ñoo ngi leen di wax ne leen am na loo xam ne duñ ko seetaan muy muy xew ci département bi te nii ñu ko xamee nii nii nii bii paa du amul yëguma ko de bii paa du am yëguma ko parce que bind nañ leen ñoom ñëpp te lii fii xew am nañ ci part de responsabilité dëgg la ñoom ñëpp jàpp nañ ni département bi bëgg nañ Ousmane d'accord bëgg nañ Ousmane mais ci dëgg lañ ko bëggee de mais lii du dëgg de kon nag. nañu taxaw ñu wax ngóor siy dëgg parce que lii lan laa ban jàngal laa si gis mooy beew dara laa si gis te beew nag moo fi jëlee ñi fi nekkoon yàggul yàggagul kon nag ñun nañ joxe bon exemple moo gën ñuy joxe mauvais exemple léegi nag fi may woo fi may woo ñi si kaw mooy ñun nag comme que Macky Sall lañ munta nangul injustice à ku ñu bokkal biir parce que doon xeex benn xeex te démb nag fi la ñu fekk fàtte fàtte xajagu fi fii gisoon nañ fi ñoo xam ne bi mbir mi mettee fi lañ doon taxaw naan dañ leen a sibbi ay tàppet doomu la tey la neex ku si nekk di réyal dara wax mais ku nekk xam nga kan mooy kan man mii di wax ak yéen daaw ci heure bi maa ngi ci kaso am na ñoo xam ne nag moom tàppet moo tax dugguñu kaso ba ci moom Cheikh Thioro fekk na ma rëbës li ma ko xamal mooy kan seetsi bi nice na mais li ngeen di def mooy dem leen ba fexe bu leen kàccaat ñi nekk biir Reug loolu nag mooy bëgg am ñi doon sacrifier seen temps ñi fi faatu ñi fi perte seen liggéey ñi fi perte lu bëri tey naka la ñuy siggee xool ñun nag du bàyyi projet projet bi lañ gëm li fekk projet bi moo ngi dëkk li fekk président Ousmane moo ngi doxal dëkk li fekk président Bassirou moom doxal dëkk ñun ñoo ngi ci mais nag lii ñu gis nii duñ ko seetaan bu doonee benn personne des ci doxal nañ jàpp ne man moom day doon man bu doonee benn personne buy dox buy doon buy doon kuy bañ man day doon comme na ma ko waxee sama famille ci Macky Sall bu fekkee Macky Sall day jàpp Sénégal gépp jàmm jàpp leen ne Bamba Cissé moom du ci bopp man moom du ma mës doon jàmm kon nag loolu laay waxaat ci lii am na lu bëri loo xam ne tënk nañ ko ci benn leetar jox nañ ko ñi jiite parti bu ñu répondrul nag am na yeneen jéego yu ñuy tegaat mais nag dinañ dem ci campagne mais ak autrement ci beneen façon ñii nii ñu investir duñ leen topp danañ campagne nag duñ sanctionné liste parce que tamit nit munoo jouer première mi-temps ak nit contre ko deuxième mi-temps kon sa bopp ngay wetti te ñoom ñu def loolu ndax jàpp nañ ne njuumte mënut a ñàkk waaye bu njuumte amee jubbanti ko naa am kon nag ñu ngi leen di woo ñu revenir à raison bu ñu revenirul à raison nag moom ñun danañ danañ danañ def li war a def. da di liñ naan li duuf ci nag wi xajul ci cin bi mooy yëf te li ñuy wax ni c'est des cris de cœur loo xamante ni lu ñu gëm la te it lu am la te ñi ñu koy waxal xam nañ ne lu am la àdduna du benn fan te dafa am benn mag bu ne ma rétroviseur baax na ci oto lool waaye ci nit la gën ndax nit boo doxee ba mu yàgg war ngaa ne teg xool sa ginnaaw dafa mel ni nag gars yi dañuy bëgg a fàtte li fi xewoon ak li fi amoon ci ginnaaw te fàtte xaju fi du benn at at sax waxaguñ ko ay 6 mois 7 mois la ñuy wax kon nañ nettoyer suñu rétroviseur te xool li fi xewoon ci ginnaaw ku ko def rek dis gor ku ko deful nag doonoo gor dëgg kenn du ko raay feccum liir bu neexee daa am ñu jàpp ca mbagg ya parti bi musuñoo am doole musuñoo am fond boo xamante ne dañ koy jël di ko financé ci ay lu mel ne campagne wala leneen militants yi rek ñoo ko doon def ñoo jël seen dërëm ñu jël seen ñaar dërëm ñu boole seen doole sacrifié wu ba yëf yi taxaw kon nga la waaye bu yëf yi taxawee nañ delloo naaj bi xoromam waaw góor yaakaar naa kenn war a koo bañ ci nit koo xamante dafa doon sonn ci yow nit koo xamante dafa sacrifié lépp lépp jox la kon bi yëf yi daf demee ba mel ne lu soppeeku. ñooñu nañ xam ñooy kan na leen yëg gars yi kenn ci nekk la ngay dundee yaa koy liggéey mais dafa am lu ëpp solo ci nit muy yëg yàlla mi ñuy sàkk moom ñu julli ñuy julli lu ko jariñ dafa bëgg ñu yëg ko nit ci boppam moo bëgg yëgul rek day gis boppam looloo waral lii looloo waral sunu ñaxtu yi boobu léegi ñu koy def ci injustice boo xamante ni dafa ci biir parti bi ñu koy dund te boobu ba léegi ñu ngi wax nee nañ nag taal bu noppee ta bu boo taalee ba sonn mu wet boo xalaat ne mu tàkkee rek moom def boobu ba léegi ñu ngi wax bind nañ waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal waaye ba léegi benn solution soppeeku amul adduna nag balaa ngaa xam nit wala nga naan xam naa ni na fekk waaye mboq la ñun suñu ñoo bokk biir parti bi xamante nañ suñu biir ñoom ñii jàkkaarloo ñun li ñuy wax bu dee dëgg la xam nañ ko bu dee du dëgg xam nañ li ñuy wax mbooloo mii nag incha allahu rabbi comme li Bamba wax laay wax ni mu ci jële ay principe mu jël ci ay décision ca ba xeex ca ba muy mett ak Macky noonu lañ jëlaatee suñuy décision ci lii parce que du ñu nangu. liggéey li ñuy liggéey ba noppi ay nit jóge fële di bëgg koo yàqu duñ ko nangul kenn parti bi du parti kenn parti bi ça appartient à tous les africains xam du moomoolu kenn affaire patriotisme la patriotisme nag bu fekkee ne dund ba noppi di dund leneen ci suuf ñu ngi nax suñu bopp bu ñu jël buntu néeg bi teg ci rilo rilo dëgg te boo duggee ci biir bi fekk fi ay nar bu ñu nax suñu bopp trop c'est trop trop bi nañ ci góorgóorlu ndax parti bi li tax ñu war ci góorgóorlu dafa am ay sacrifice yu métti yu ci am ay quatre-vingt-sept personnes morts ñaata mille détenus ñii seen liggéey yàqu ci ñii jël ci ay balu tànk ñii jël ci ay balu biir Abdou Sélém ni toog sama wet ay bëtam ci la amee problème ba léegi te kenn taxawu kenn taxawu te ñu ngi def yeneen yoo xamante ne du priorité ca ca moom ñu ñu jël ko faj di ko mu gën a ak yeneen ak yeneen ak ndax sànq nit dafa dafa dafa dafa sacré bëri na jàll ci nit ko souligné woon ay nit ñëw bëgg faj ko waaye bu doon gor parce que ña nga xamante ne ñu bëgg jël engagement faj ko dañ ko bëggoon politiser moom jëmmam ji parce que bokkuñ ci parti moom nag gor la parce que tey bu ko neexoon mu ne je m'en damay dem xool fu mu mën a wéree ma dem faj mais dafa ne te li may wax ay nit ñi toog fii doy na ma parce que loolu ci ñoom la jaar mu mu mu téye ngorom ak dignité gëm ne buy dee Pastef lay deewee suy faju Pastef ñoo koy faj ndax possible la xeexal ba dugg ci kaso kon dafa yoo xamante ne fàtte xaju fi ñun nag dafa am loo xamante ne dañ koo jël comme engagement ne dañuy ànd sàmm projet Pastef loolu nag bu dee benn nit bu dee ñaari nit ñun ñeme nañ ñoo ñu nekk amul lenn loo xamante ne mën nañu gàllankoor wala mu xoxatal ñu wala ñu découragé ñu déedéet ndax yaakaar naa ne diine islam moo gënoon a metti lii téeméeri junni yoon te lim bu ndaw moo sos Ousmane Sonko tam ba muy sos lii di xeex gars yi dañu ñëw mu te gis nga fay fi àgg kon courage boobu moo nekk suñu duñ mës a xàddi lu mës a arrière li nga xamante ne moom laa tëjee waxtaan bi mooy ñi nga xamante ne ñoo ne woon ay militant doon ay soppe bëgg parti bi daan ci jëf daan ci xeex bu dégg ba cëg tey ji ay wax wala ñàkk ñàkk considération dem nañ ba yëg loolu ci ñoom ba ñu bëgg a décourager ñu leen wax ne bu ñu décourager bu leen benn jëmm décourager loo affaire bi projet la te projet boobu incha allah rabbi dinañ ko entendre dafa am ay jëmm yoo xam te dañoo nekk fii ci département bi dëkk Touba ñooñu kenn mënu leen bañ a citer ndax dañ di ay jàmbaar yi fàkk tëdd yi nga xamante li ñu daj ci projet bi. ci wàllu financement kenn dañu ko ci te billaahi wallaahi ba fii may wax ak yow kii nga xamante ne mooy le coordonnateur daful lenn li nga xamante ne lu rafet la ci diggante ak ñooñu lu mm-hmm. dul teggi leen fi jàpp ne jekk na jàpp ne bu asamaan si loolu wàcc mën na koo teg loxoom te loolu muy lu ñaaw ñoo xamante ne fi ñu nekk ku mel am Amdi Moustapha Faye ancien international bëtu parti bi fu mu ci moom la ñuy jubali li may nëbbu ma ko waxee moo ko ci néeg waxee moo ko fenn ci biir ci ci ci ay caméra laa ko waxee kooku ku ñu war a sargal la ku ñu war a teg ku ñu war a teg ci kaw la parce que ba ba ba muy jàppale parti bi parti bi seen budget matu sax cinq cent mille te ay millions la ci daan def di ci sacrifié di ci daj lu nekk di ci dégg lu nekk tey jii kooku lañ ko ginnaawal kon nag loolu du yëfu gor du yëfu du yëfu nit du yëfu sax jullit du yëfu murit te jub jubal jubal la ñu wax jub jubal jubal nag lépp luy saltel dañ ko si war a génn te parti bi dafa am ay comme li ma waxoon parti bi dafa dafa infecté dafa am ay virus yu nekk ci parti bi mën naa ko misaal comme oto te yow mi chauffeur bi di dawal soo dawalee ba gis sant ne am na lu pan wala am na anomalie bi ci nekk nan ngay def mooy dem di béykat yi seen réparé boobu ba góob li ngay def. mais ñun nag dañoo bëgg dawal oto bi bëgg àgg fañ jëm te oto bi am ay anomalie loolu dañ ko war a lijjanti leneen liñ ciy teg mooy dafa am lu nekk suñu kanam ñu ngi ci biir sax tàmbali na daanaka muy législative yi liñ ci waxoon démb wax na bërki démb moom la ñuy waxaat bu doon ay saritu mbaal la dañ tolloo moom te mu lew te set billaahi wallaahi dinañ campagne ak moom ba am majorité incha allahu rabbi. benn sëñ Cheikh Samb Euh, nekk ci artisan yi doon fa kilifa bu euh, mel ni sëñ Basi sëñ Basiru Baabu moom it doon kilifa jàmbaar entrepreneur yàgg a jàpp ci parti bi yàgg cee ku mel ne ki wax léegi am na lu soo fay day wax ne nag lu jiwoo jeexul tuur fañ teewoon doon jàppale parti bi te yàlla tax bu leen dara découragé ko ñu ngi leen di loxo fas yéene ànd ñoom liggéey ak ñoom. xeebu ñu leen ci benn wet Ibra Cissé ak Nourou euh, Niang tam euh, ñoom it teew nañ fi teewal docteur Mbodj euh, comme li ma leen wax ci njëlbeen gi rek législatif yi moo tax ñu bëri ak préparatif yi moo tax ñu bëri teewuñu mais ñu si bëri yónnee nañ seen kàddu tey fas yéene ànd ak ñun liggéey jub jubal jubal di lañu wax incha allahu rabbi législatif ñoo am majorité ci barke Seydina Mohamed wasalaamaaleykum